Santo ñu ngi sant yàlla julli si bi sant suñu ay ñaari waajur ñu ngi nuyu waa kër Cheikh ma bu baax di nuyu waa kër Cheikh di nuyu sama waa kër maam Cheikh Ibn Oumar di nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom sëñ Fallou di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi nekk ci dëkk bi yëpp. di ziar ñëpp nuyu bu baax a baax. gis nga sa adversaire keroog mu ñëw fii def séance de boxe nan ko gisee ak bi mu sumee ko noonu physiquement nan ko gisee. waaw adversaire bi liggéey na liggéey na bu baax parce la. ñu jëm ci bis bu am solo xam nga mu ànd ak ay mbokkam liggéey man ma ànd ak sumay mbokku liggéey ñu war a bëri le 13 liggéey na bu baax a baax dañ ay coono la quoi promoteur bu ñu fay xaar a daj ñu ñëw def fulaak fayda incha war a bëri mbër boo xamante ne mu duggee ci làmb yàgg na boobu ba léegi benn defet lañ ko xamal boo xamante mbër daan na ko muy Eumeu mu dëkk Pikine keroog mu toog fii ni Eumeu Sène daf koo naxoon daan ko mais yow muy bëri nag daf laa xam bu baax. jël exemple ne Eumeu Sène daanoon na ko mais yow daf laa xam. waaw loolu dëgg la mais xam nga comme naxoon nañ ko daan ko ñu day ñaan yàlla rek naxaat ko daan ko parce que làmb moom ku juum rek daanu xam nga te ñun ay xale la ñu ngi ci liggéey bi am na fu ñu jugee am na fu ñu bëgg dem te fu ñu bëgg a dem xam na lu ñu koy may mooy ñu liggéey bu baax daj ay coono parce que ñi bëre suñu ay mag lañu ñoo jiitu ci làmb il faut que ñu daj ay coono bu baax pour mën a am ndam te ñu ngi ci bu baax liggéey bi nag jeexagul. waaw li ñu dese moo ëpp lu ñu am daal dañuy yokk liggéey bi ñaan suñu borom mu defal ñu ndam ci barke Cheikh ñu ci liggéey bu baax incha allah. booy ñaar ndam yi kat la. ci bëre. ki ngay bëre confirmé effectivement dafay xaar. nga gis lu leer. mu dem su gisul leer dafay taxaw. donc bu ñu comparé ñaari bëre non non ñu ko yàlla ñaanuñu ko yàlla mais li nga xamante ni moom la ñuy bëree wala moom la ñuy indi jour ba loolu ñu ngi koy liggéey ak suñu ay staff loolu suñu ay affaire bopp la li ci des mooy waaj am doole bu baax bu jour ba ñu woo Pikinois yëpp ak fan si fu ñu nekk ñu ñëw mais ma ne combat bu am nii la parce que man dafa am fu ma bëgg a dem. wax dëgg man dafa am fu ma bëgg a dem te la dëgër tamit am na lu mu war a prouver ci làmb parce que génération bu ma àndal buñ ko jiituwul tamit am na ko jiitee kon moom am na lu mu war a prouver Boy Niang am lu mu war a prouver làmb ji maam moom ñoo ko seek nekkul na boo ñaam moo war a bëre bëre bi nekkul na Lac de moo war a bëre maam moom ñoo war a bëre xeex parce que dañ ko fay fay ma yaa waaw ñun am nañu ay pexe parce que ay doomu mbër lañu am nañu ay papa yu mbër suñu ay papa suñu ay nijaay yëpp ay mbër lañu balaa ñu dem ci làmb dinañu woo nañu comme combat ak combat duñu koy defee boo demee ci làmb ji bëree lii ak lii ak lii làmb nag dañ lay yàq boo demee fekk fa leneen làmb bés la bu nekk li ci xew li ma di ngeen jàpp ne bëri bi noonu lay demee sax mun na bañ a bëri noonu mën nañ bëri ci ay seconde mën nañ bëri ay minute waaye yàlla daal moo xam mais boo ñaa lu ko war mi ngi ci ak staff bi ak ñëpp ñu nekk ci ginnaawam ci jour ba allah comme ni ñu xam ci boo ñaa dañ ñëw def fu la fayda xeex bëri suñ boobu ko ñaam dafa ñu ndam mos. bañu ma dem ardo bañu ma mos ci bis bi yàlla xam na ko billaahi wallaahi bañu ma dem ardo bañu ma mos combat la dañoo war a xeex mun naa ko dóor mu dem ardo mun na ma dóor ma dem ardo ñëw bëre daan waaye lu li ci am solo mooy ñibbi piquet ak ndam te lay ñaan suñu borom yàlla nañ ko defal waaw mën nañoo nàcc bu baax a baax loolu dara mën naa am xeex la te ay ay ñaar yi xama man duma poids lu sax mais moom poids la ñaar poids fu poom dal rek bunt mën naa am kaaw mu naam kenn xamul. mais boobu ba léegi foo leen taxaw mu ni soo soo dëggalee sa bopp mu dóor la nga daanu. est-ce que mën nañoo xaar arbitre sifflé Boy Niang taxaw dëggal boppam ci kanamu Lac 2. waaw ñu dama naan est-ce que mën nañoo xaar arbitre sifflé yéen ñaar ngeen dëggal seen bopp loolu dafa am solo man moom yëpp ñoo war a dëggal suñu bopp. kon dañ leen di jiiñ dañuy wax naan lu ma ñëw dañuy wax naan la dëggal chaque combat am maanaam ci ci signature yi ci face yi mën na wax ne dañuy rayante bu jour bi ñëwee man sant yàlla amaguma match nul ci làmb match nul la ci combat bi amaguma maa ngi sant yàlla mais moom dafa tàmm di wax ne dañuy rayante combat yi passé dañuy rayante boo ñëwee boo dëgg dama dóor nga daañu dañuy xeex du ma ko buuseen mètre bu jour baa mu ñëw def match nul kon ne da war a wax ni ñu leen xaar yéen ñaar ngeen def fulla ak fayda xeex bëre parce que moom ma xam ko mu ñëw dëggal boppam mu dëggal sama gis combat bu neex parce xale laa dafa am a dem incha allah problème bi mooy moom daf lay woo ci nga dëggal sa ko boo ñaan nee na dina dëggal boppam mbër capaa yi nee na dina dëggal boppam yow di nga dëggal sa bopp parce que may damay dégg message fan sam yëpp loolu lañuy wax moo ne chaque jour yaa ñu koy wax mu daaw dëggal sa waaye bii moom mooy sa laas bi ma dernier champ bi waaye fan sama may pour mu dëggal boppam maanaam boo dëggalu sa bopp ci ay champion boo dajee booy boo xam dalaa fekk ci làmb war ngaa mën a dëggal sa bopp kon maa koy ñaan loolu mu dëggal boppam man ma dëggal sama bopp. booy ñaan a jëm dafa foo bëgg a ne <laughs> a fàttali naa ko. seet nga ma yow ñu waxtaan ci keneen ak keneen ma ni leen Sénégalais yi ñoo jàpp loolu ne siibul boo ñaa Balla Gaye mun naa suñu borom mun na maa may dam sax mu bëree keneen ku dul Balla na ay champion yu fi ci làmb wala ñoo bëreeg champion yi fi nekk yëpp kon nag da ngeen a gis ni waa Balla laa war a bëreel mais làmb mën na jeex ak làmb nu muy doxee ma bëreeg beneen champion wala ma bëreeg sama beneen morom bu la day dox Balla champion dafa bëreeg ay morom mu jeex mu bëreeg ay magam du champion bu confirmé yaa ngi dégg ñun nag làmb lañ ñu ngi ay xale lañ doon doo bu ñu doonee champion tamit champion yu ndaw lañ nañ ñu bàyyi ñu def suñu yoon bëreeg ñi ñu war a bëreel nànk-nànk ba soo gisee dëkkante wuñu ci dara incha allah soo gisee mu posé la question bi sax dañoo gis ni sa dernier combat yëpp ay mbaru géej waaye benn instant sax avant sa combat ak Sa Thiès mm-hmm. Balla Gaye nga doon laaj mm-hmm. mbër yi nga doon daan géej waaye ak Lac de Guiers lan mooy seen différence mooy li may tontu rek boo xoolee xam nga ne yow tontu naa ci lu bari mooy li may tontu ma ni la boo xoolee ci làmb li nga xamante ni moo moo tegu ci làmb boo ñaa ba mu daanee saacees yi tegu ci làmb nga xam làmb da nga xam ne boo ñaa ak Lac de Guiers combat bu a bëri la maanaam adversaire yi mooy tombee ñuy féete géejawaay man sax dama leen di gis waa géejawaay ñu xaw a excité am nañu waxee du noonu Pikine ak géejawaay benn la ñu ne ñoo far man naa ay supporters balla keneen ak keneen mën nañu am Pikine ay supporters làmb la man boo ñaa numéro 2 ak Lac de Guiers numéro 2 ñooy bëre yaa ngi dégg abi sif la ñoom ñaar lay seen diggante dëgg na nag booy bëre sa waa dëkk dañu nekk sa ginnaaw am benn problème mën nañ nekk ci ginnaaw mais waa géej may leen appel boobu ko boo ñaa mi ngi leen lance appel ko bu ñu excité wu bu ñu waxee noonu ñu ñoo fa làmb la dañuy bëre nag ñëw ñu fa di raayante de man ak moom dañoo war a xeex bëre mais supporter dinañ ñëw ci discipline yar ak teggin xam ne affaire bi du ay pigi bi booy ñaa géej waaye géej waaye ma fa def lu dul bëre ak seen mbër jeex su ma am do ku bëree damay demaat benn équilibre ñu bokk ndey bokk baay bu baa nag man ak moom dafa war a saf saap dañoo war a xeex mu saf mu bëree mu saf amateur yi kontaan ñu ñibbi ba léegi dañuy des ci géejuwaay bi rek sonal nga leen trop mais instant bi nag def nañ coalition ànd jële fi Boy Niang mm-hmm. bañ nañ ko ba jël nañ lak da ci gii gii ma nga xamante ni kuy entraîné mbër ci musculation rek moo la man mm-hmm. instant bi moo yor sa waay nag instant bi moo ko jàngal nu ñu escouaté moo la incha moom champion la xam nga mu ngi entraîné ay champion loolu ay bagage la dëgg mm-hmm. la nu muy liggéeyee ku muy àndal loolu ay bagage su boppam la man samay bagage su bopp laa yor liggéeyantuma ay bagage am waaye ñu ngi ci ginnaawam c'est évident c'est normal ñu nekk ci ginnaaw kon man Pikine nu nekkee sama ginnaaw ak sama fans yëpp ak waa kër Cheikh César nu nekkee say mbokk dañ lay topp nga waaj amul benn problème na waaj a ay mbokkam ñu jàppale ko loolu mooy làmb mais daal dafa am loo xam dafa ma neex ci bis bi xam mooy lan abi bi buy sifflé danaan la déggee pare nga boo ñaa pare nga ñu sifflé loolu moo neex wàllum teen ku ñëw ci pind ba ngay yem man ak moom ñooy bëri incha allah. xam nga ni waa Guédiawaye bu ñu def moo gën a sûr par rapport mm-hmm. te gis ci benn point bu ñu war a mooy diggante Ama Baldé ak lenn ci mbëru Guédiawaye yi est du indi paradoxe par rapport ak mbër waroon na bloc ko boo boo suivre communication man boo ñaa sama combat bi passé indi ma ci ay wax ci affaire Ama Baldé Guédiawaye ma leeral. man leen Ama ah, suma frère la maa ngi koy ñaan mu xool nu mu ko arrangé mu toog këram wala mu ñëw stade bégal ay supporteram wala mu def fu ko neex man gëwuma loolu man dama am philosophie boo xam ne dama jàpp ne man ak mbër bii la arbitre sifflé ma loolu la am philosophie boobu laay doxee. mais waa Pikine yu bëri waaw non non amul am na droit ànd ak ko neex ni doo ko tàndal ku muy àndal. Mhm. am na droit ànd ak ko neex suma frère la maa ngi koy nuyu de passage di ko wax mu ñaanal ñu dam te mu ñëw jàpp ci combat bi suñu frère la. comme Eumeu Sène suñu ay mag ñu ngi koy ñaanal roi bi yàgg ci moom. Mhm. ay soq ay jëlle booy yëpp. Batista ñëpp Giza maa leen ñaan ñu ñëpp ñu jàpp seen combat bi seen combat la mais Ama am na droit ànd ak ku ko neex man loolu moo nekk sama communication ba ñu commencé ba léegi. est que dëgg la parce que seen ay sorties yu ci bu wér ci Boy Niang ak ñeneen ak ñeneen. parce que maa leen yéen ndam ñu daje ñu kaf ree bokk ndey bokk baay te loolu dëgg la ci man la billaahi dëgg la ci man te dëgg la ci ñoom tamit ëmmal seen ëmmal seen suñu grand la mi ñuy woo ci combat bi di ñu conseillé di ñu wax nii la ak nii la kon Pikine Niotise bi ñuy wax bu ñuy waxee 100 pour cent ñu ñëw ko fi génne ba ñëpp di roy kon nag bi waru bëgguñu mujjee puso bi mu reesu ñun 100 pour cent bi mi ngi fi mi ngi dox Ama Baldé dégguñu ko mu ngi ci combat bi gis naa sorti mi dafa mu ñu ñaanal ndab dëgg la ci moom ëmmal seen tamit noonu waaw benn instant nag yéen yu bàyyi suñu pigindee ñu ngi nekk ci jàmm xam nga baa leen ñu nekk ci jàmm tranquille ku nekk nekk sa waar bay ko mu ci mën pour bés a ci wàllu ko topp te bés bi di a xaar pour xam nañ ko boo nee Boy rek moom bu génnee bëre bi xam na nañ day teg ambiance te incha allah ren xam nga génne nañ benn fecc bu bees boo xam ne curuxu curuxu la tudd dañ koy tuus curuxu carax xam nga moom la ñuy tuus stade ba mu neex bu ko defee nag bu ñu tëjee géew bi nag bu fecc yëpp jeexee dem fulla ak fay rek. nga bëre curuxu curuxu. incha ah bëre bi moom kenn xamul bëre bi moom suñu bagage bopp la mais dama ne la. bu ñu feccee def ambiance ba ñëpp kontaan bu ñu tëjee barrière fulla fayda jom. parce que dafa am ñu topp suñu ginnaaw yaakaar nañu. lan lan la moytuloo ci Boy Niang ci ci Lac de. ci Lac de ah. amul dara looy moytu ci moom. ci côté bëree bi côté xeexam. góob ma ko nag champion la mi ngi ay bagages am ñun tamit champion bu ndaw la ñu ngi suñuy bagages xam nga amul problème dañuy daje xeex xam nga jóole woo bëree xam nga loolu la rek laa am amul problème. di koy ñaanal jàmm daal di ko ñaanal waa géej waay yëpp di ñaanal suñu bopp jàmm. di di di nuyu waa kër Cheikh na Sassab bu baax di nuyuwaat waa ñu ngi ci koor gi di baalu àq ñëpp. di baaraax ñëpp journaliste si ñu nga xam ne ñoo bokk liggéey bi parfois ñu fëlante wala ñu gaañante ci làmb ji yaa ngi dégg ñi nga xam ne sama mbokku mbëri maa leen baal ak di leen baal bi dirigé làmb ji ñu leen di ak di ak ak supporters yi boo ñaar di bëri ñëpp sonn gaañu xam nga hmm. parce que ñu yéeg fii gaañu am ay problème ñu ngi baalu ak ñëpp ñu ngi sant ñëpp di sant nag ñi nga xamante ne ñoom laa àndal muy suma grand suma lépp muy Abdou Kandji maa ngi koy di nuyu sama papa Bourkhane Wade Père Bourkhane maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ma àndal ñëpp Pa Seck sama mag di nuyu ñëpp daal di sant ñëpp di wax ñëpp ñu jàpp ci combat parce que combat am solo la ku ci mel ni sama papa Siré Dia des Portes maa ngi koy nuyu bu baax ak jabaram moment femme di ñu jàpp ci bu baax sama mag jarnadom ba Ablaye Timbo sama papa Isaaxa maire Pikine Est maa ngi koy gërëm bu baax Pape Gorgui Ndong ñëpp maa ngi woo ñëpp daal fu ma limee sax damay juum mais maa ngi woo ñëpp parce que suñu koñ la ñuy bëree maanaam dama koy wax gars yi rek dañuy jóge sama koñ rek jaar syndicat lekk fa ay mango xaal xam nga wàcce moom dañuy dox rek xam nga sa mbër bi ah. dox ñu ànd dem dem stade quoi xam nga ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu ci baat Cheikh Nassir Samb suñu boom defal ñu ndam maa ngi nuyu waa Casamance sama supporter yi fa ne ak ñi nga may ñaanal foofu maa leen nuyu bu baax waa Bajaar yi da wax ñu ñaan ma suñu boom defal ma ndam bu baax a baax samay papa ak samay yaay ñu ngi fa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tamit baay parce que mooy promoteur bi moo tëgg combat bi mooy bailleur bi moo gën xaalisam def ci maa ngi koy nuyu bu baax tey dañoo ñëw ci salle boo xam ne le grand champion Souleymane mbay di fierté dëkk bi xam di fierté suñu réew yaa ngi nekk koo xamante ni dafa am lu bari mais importé ko indi ko ci dëkkam ñëw samp ko muy salle bu mel nii ñu ngi Souleymane ñu ngi lay ñaanal jàmm xam di la ñaanal affaire yi yokk bu baax yow moom royukaay nga xam nga ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp lu ñu fi wax mu dëng ci ñun la bu jubee rek suñu borom la maa ngi sant ñëpp jërëjëf ah. waaw gars yi tamit may lancé appel bu am solo moo ni combat bi yàlla dafa def duñ ko wane en direct di wax ni képp koo xamante ni fan sa Boy Niang ak foo nekk nga nekk Sénégal ci TNT bi ngay jaar pour mën a xool combat bi seeraan ko wala nga dagg sa billet moo gën a yomb yooyu yëpp xam ñun moom dañuy wàcc yëpp duñ ci fekk yaa ngi da ngaa nekk étranger ma lay lancer appel boo bëggee seetaan combat bi sa carte ngay jël sa carte bancaire nga dem ci seen affiche PPV la mode PPV la nga dem ci seen affiche. dugg fa seen affiche point com dugg fa jënd sa paas seetaan lamb ji nu mu la neexee comme ni ngeen amee habitude di ko def combat yi passé mais ñi nekk Sénégal di fan su boo ñaay njaab leen ñëw estaat ñu neexal def xam ambiance suñu borom ba ñu dem ci bàq seen salle jërëjëf.